boroom buur nga xam ni jomb naaw tal moroom juleeti it ci Mustafa soppeem ba moom mi mu tànn daaf ko muy buntam ba te sante Bamba bu weete yeesu lu feddali ak njébbal fasaad góor Seex Mustafa nee na jëwriñi jëwriñi Sëriñ Tuubaa ji Seex Muhammadul Muntaxa yow Cheikh Mouhamadul Bassirou Mbacké Cheikh Moustapha nee ñu ngi lay nuyu ci turu jëwriñ ja nga xam ni nee la gën a foor la doon ci yow muy ab soppe sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta Fall ji nee mi ngi ñaan su borom yàggal ak dundam te wéral ko nee na ban jugee nee na dañuy bañ a loru bañ a lore moo tax jëkkewun fi yow waaye buñ doon def yoon rek nee na ku ñëw ci bés bi ba teg la bët Basiiru nee bu fekkee la muy def suñu borom a tax matale na bés ndax da ngay jëwriñ ji jëwriñu Sëriñ Tubaa kon yaay jëwriñ ñëpp. kon yaay jëwriñ nee na ba demee fa Serigne Cheikh Mbacke dañ koo fekk mu fatu ñu dem ci kam def muy jëwriñ ja muy Serigne Sidi Mbacke ñu fekk mu fatu Cheikh Moustapha ñu leen nan dem ca ka nga xam ni nag kay jëwriñi ñëpp moom la def jëwriñam muy Cheikh Mamadou Bassirou mi toog nee noonu lañ def de sëñ Abo Gueye loolu dëgg nag mooy la ci dëgg nag mooy luñ ca bàyyi rek. boo demoon nee na boo demoon ci église ba. nee na du tee ñu weddi alxuraan. waaye du tee alxuraan di dëgg. nee des ko bàyyi rek. nee yow tam ku ci bàyyi waxam ji. nee dëgg la Cheikh Moustapha wax. nee na ku ñëw ci bis bi. ngir jëmi Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacké. nee na ñëw teg la bët. nee na yóbbaale na ñëpp. nee la Mbàkke moo tax ñu ñëw nee moo tax ñu ñëw fi yow na bor nag waroon fi nee yàgg du ko dindi. am ku lépp bu yàggee am dañ. am ku lépp bu yàggee dañ dañ Lo. nee ko fayul. fi ne ñëpp ñu amee Cheikh Bassirou Mbacke bor. nee na ku la nuyu ku nekk. lam la war a njëkk wax mooy. jërëjëf Mbacke. nee na bor bi ñu ameel. nee ma dugal lii. nee lim ci dugal nag lum ci dugal baax na maa ngi lay sant baax na maa ngi lay gërëm baax na jërëjëf baax na li nga bëgg yàlla na nga ko am ku nekk amel na la bor ci yoonu murit waaye lu mën na ko ci def rek bor moom naa borom xeebul mbaxana loo am jox ko rek kon nag Cheikh Bassirou Mbacké nee na ci turu Cheikh Falilou Fall sa ba sa ba sa taalibe ba nag nee na ñu ngi lay jotile kàddu yu ñoo ngi yalwaan yàlla sunu borom yal na yàggal sa dund gi na nga wér mbàkke yal na nga mucc mbàkke yal na nga gën a ma mbàkke njub ji yal na sax dàkk wasalaamaaleykum wa rahmatulah nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee Cheikh Mamadou Moustapha sëriñ Bassirou nee mi ngi lay delloo am nuyoo bu baax a baax ndax yéen day baaxawu leen wax ñu leen di tontu ndax jëf rek ngeen di def waaye booluwu leen ci ay wax waay nag day bisub cant faal ak bisub ngërëm ngir seen taxawaay kon sëriñ Bassirou nee na mi ngi lay yëbbante am nuyoo ci Cheikh Mouhamadou Fadal nee di ko ñaanal bu baax nag sun borom dolli ko ak wér ak kartan ba mu yàgg gën a liggéeyal maamam ci toolub sëriñ Touba bii te yéen it topp ci ginnaawam ndax xam nañ posté boobu sëñ Falilou nee na ca biir kër ga xam na itam ni ab kenu ngeen ci biir kër Cheikh Ibra Fall boo xam ne saa su xëyee day gën dëgër waaye du gën a wàññeeku. kon nee na ñu ngi lay sant faal ba baax a baax di la yóbbante ci moom ak cant di la yóbbante ak cant ci Seex Amdi Faal mi nga xam ne tey sa waajur la sa nijaay la nee na moom it koy sant bu baax ndax kër maam Seex Ibra moom Pastef du kéemaan ci yéen waaye gis nañ ak dogoom ak fi mu toll ci ay at ci Pastef ci liggéey ak tawfeex yi ko ci suñu borom defal kon nee ñu ngi lay ak kenn ci jëwriñu Seex Ibra Faal ji sëñ ak mboolem sa rakk yëpp bu ci tuddee sëñ Abo Fall mii nga ak sëriñ Gunda Fall mii ak sa doom yi nga àndal tudd ci sëriñ da am soodo mii ñu fi fekk nee na xaw ma loo ci moom waaw wala lu ci yow waaye nee moom itam ab taxawaayam rafet na waaw waaw nee na sëñ la lool nee na nag Cheikh Moustapha Cheikh Bassirou ne mi lay beral sa bopp ndax sa nangu gi la yàlla jagleel ndax nee loolu yombul de la sëriñ Abdoulahan Mbacke waxoon Cheikh Abdou dal na la sa digganteeg sa kilifa daa waxoon ni ba sëriñ Touba boole daa dàq seytaane ba noppi doog leen a boole nee loolu nag seede la ko Cheikh Moustapha Fall sa diggante sa kilifa nee te waxe ko waaye da nga koo jëf nag nee loolu nag nee na misaal la mooy li ko gënoon a ñor ci wax ji nee na la nga ci yoon wépp ndax xam ne ne day magante gi de bawul noona waaye sa waajur rek nga koy xoolee te yoon wi nag fu mu egsi looloo aggale fa àggale muy ak taalibe ak pasteef ak nangu te xam nañu itam leneen seen waajur sëñ Modou Aminta Fall yare woon ca nekk ba ni nee lu am rekk joxaat ko Serigne Touba soxlawu leen ay oto soxlawu leen i kër soxlawu leen dara seen lépp delloo ngir ko Serigne Touba. ba amul leen lenn lu dul sëñ Touba amul leen dara ci seen i waxtu amul leen dara ci seen bopp waaye nag ki ngeen di jëfal yàlla na yàgg rek ndax wóor na ko ni ay jàmbaar dëgg ngeen nee na tabaski yi jàll rek nee na mi ngi ndax wax nañ ko seen jëf ji ak seen taxawaay ci Cheikh Rafal loolu yoon wépp ngeen ko defal yéen waa kër sëñ Modou Aminta yi ndax képp ku bëgg Serigne Touba. luy suuxal yoon wi di ko dundal di doxe na yoon war a doxe nee na ku la gis itam xam na ni yaa ngi ca yoon wa nee na ñëpp ngeen koy defal kon neen nee na moom sëñ Basiru lim leen di ñaanal yéen yéen mboolem njabootu Cheikh Rafaal gi mooy kattan ak wér ak baat bi ngeen di ñaanlu mooy jekk ndigalu sëñ Tuubaa ndax mosu ñoo toog kenn bokk ci sëñ Touba di ko ñaanloo ci àdduna wala ngeen di ko ñaanloo ci àllaaxira ko ba noppi seen yitte jëpp mooy jekku ndigalu sëñ Touba li nee kon lii day kàddu yoo xam ni daa newoon ci xolum Cheikh Bassirou Mbacké bis bi xat na de waaye nee na lum na su ko waxul nee du mën am jàmm